Bienvenue à Jigéen Sénégal. Jigéen Sénégal est une organisation sénégalaise féministe à but non lucratif. Créée en 2016, notre organisation a une représentativité nationale. Nous intervenons dans six régions du pays. Notre travail consiste à promouvoir le droit des femmes et des filles au À travers le plaidoyer, la sensibilisation et le renforcement des capacités. La redevabilité est un pilier essentiel dans la conduite de notre mission. Nous sommes des militantes féministes, sans mais ni cependant. Agissons pour les droits des femmes et des filles au Sénégal. Asna Khadim automobile di agence bii def vente ak location de voiture adresse am nekk ci doanu cité kër góor gi yoon bi jëm ci Sénélec bi après la mosquée Asna Khadim automobile dafay jaay oto ci njëg gu yomb te xéewale ak catégorie oto bu leen mënti bëgg ci njëgu 2 millions ba 80 millions de francs CFA dafay def tam location de voiture ak façon oto boo mënti bëgg dañuy def tam reprise maanaam échange ci yow mi nga xam ne dangaa bëgg a dugal sa oto joxe xaalis ñu daal lay jox beneen oto bu bees loolu mën na automobile dañuy def tamit moratoire pour yéen salariés yi ak chef d'entreprise yi waaye nag sous caution lañ koy def li des nag ñu mën koo fay durant un voire trois ans ñun daal Asna automobile suñu yéene moo di ñëpp am oto képp ku fi bëgg a ñëw nag suñu adresse moo ci cité kër góor gi yoon bi jëm ci Sénélec bi après la mosquée mën ngeen ñu contacter ci 77 automobile boo bëggee jënd oto bu baax wala nga loué oto bu baax baax jaaraama asna xaadim automobile wareef la ah wareef la wareef la nga sàmm te est réglé. booy enfin je suis content parce que lii booba tey ñu ngi siy daw. oui kontaan naa trop pour jot mais dama xaw a stressé wu fa. wu lan. booy booy coo booy man dama jaaxle booy. booy lii amul benn trassabilité comme ça là. booy moi je sais pas comment je vais pour justifier lii ak sama partenaire au fait. mais ban trassabilité mais yow Yannick yow loola dal. man vraiment nag parfois damay découragé quoi en t'entendant parler quoi yow yaa ngi am délibération mu nekk ci say loxo délibération baa ngi nii nga téye mais bu sa partenaire yi ñëwee mais wan leen délibération bi bu nu gisee délibération bi dinañ xam ni lii moo weesu sax ay justification ay traçabilité délibération baa ngi nii kii ça vaut des milliards. boo fi nekkoon ji jaar ci ay procédures yu normal ak ay affaire kon kii doo ko jot. non mais xam nga booy lenn moo garaaw booy ci temps bi ñu nekk booy temps bi booy mbuxum rek booy temps bi booy dossier bi depuis ñu nekk si di wàcc ka yéeg fu nekk fu ma dugg dama fay bàyyi dara dëkk bi rek. boo fa bàyyilu woon dara doo am valeur deux milliards mu nekk nii te tey jii li ñu ci dépensé weesu lu dul benn cinquante millions moom nga jox maire bi mu génne la dossier bi ba pare dox ci ay jéego yu mat sëkk. ba tey nga am délibération bi yow doo sant yàlla. ah c'est bon man kontaan naa trop naa stressé tuuti. non y a pas de stress. li ñu doon yóotu am nañ ko. délibération nga am moo ngi nii. léegi ban étape moo ci topp. non étape bi ci topp moom xam nga ko xam naa ko. maire bi léegi wax na ko. dañuy dem impôt et domaine. parce que fu mu nekk nii comme am nga délibération bi. léegi yow imagine toi kii yow. tey jii titre foncier. xoolal tey ñu def ko ci sa tur muy ef titre foncier terrain boo xam ne mi ngi ci littoral bi. waaw tey jii benn parti bi boo ko jaayee. parce que lii cent cinquante hectares la boo jaayee benn partie bi mais beneen partie bi mën nga ko def euh, centre bi ngay wax da lay rapporter des milliards yow nga téye loolu ci sa loxo nekk fii naan ma ay traçabilité ak yooyu li nga doon yóotu am nga ko mais loolu lan la léegi que tu crains. billaay xam nga. mais da ciy baax mooy loolu je t'en prie ci la ne. sëy dina amut kenn du yow de. mais xaar nag. doo ñoom duñ yow de. ak yonent bi xaar boo namm de. <laughs> yokk ci cinq. quinze jour laay def parce que deux semaines lay def. bu ma un mois sax fi mu ne dara duma bett ci yow yow rek. non j'ai quatre forums quand même ma war a def sur euh, mais quatre forums quand même sur quinze jours euh... <laughs> mais c'est vraiment. c'est vrai bu bëri nag mais ay bu am sa vacance <laughs> eh, boo boole sama nit yenn rek nem fa laa lay njëkkee Washington laa lay yebal nga fekk fa sama càmmiñ Mamour Samb koor aji dañ lay teral ba teral la fu teral amul. Mm. pare takk la ci loxo Anna Thiam Thiam Babel Demba Thiam koo koy borom états nekk États-Unis nag ma wax la. sant bëri or. mën a teral ah xanaa kon man dañ na ma jóge ci CFA bi tuuti. bu ñuy wax teraanga mm. États-Unis Anna Thiam moo tax ñu koy wax. Ah, c'est vrai que ak terrain bi nii mën nga ci def ci beneen partie bi leneen quoi. voilà léegi nag li ci gën a am solo mooy. pour ñu dem fële impôt domaine. waaw parce que receveur bi il faut ñu gis ko. boobu yow sa wàll loolu yaa koy gérer en fait. waaw sama wàll la mais il faut nga graisser. graisser waat encore. non da koy jox cinquante millions. cinquante millions est-ce que toi tu t'entends parler cinquante millions tu me dis mon gars. mais mais Yannick bien sûr que je m'entends parler mais yéen lii c'est des milliards. non booy man laaj dama taxaw quoi cinquante nii mënuma ko génne. non da ko génne xam nga lu tax parce que am nga délibération bi ba pare. première partie de l'histoire def nañ ko deuxième phase bee ci des il faut nga génne cinquante millions ñu jox ko receveur bi mu defal le titre foncier bi affaire bi légal la ci yow nag carrément à deux cent pour cent baax na parce que yow da nga ma dugal si loo xamante ne nii mënatuma si reculer waaw loolu mooy sama procédure non mais yow da ma dugal si loo xamante ne mënatuma si reculer léegi li possible mënuma génne cinquante millions là dinaa ko defal virement vingt cinq millions après on va essayer de voir nan la ñuy def pour mu jotaat beneen vingt cinq millions eh waaye Yannick mi nekkatul ci réew mi yow yàgg yow gëj nga ci réew mi yow foog ñu defal la mise à jour booy xamoo li xew Sénégal amatul virement gars yi jëlatul virement gars yi boo leen wax ay waxi virement dañuy yaakaar ni yow dañ laa wara a ndëppal a une chose boo xam ne c'est extrêmement important en tout cas ma chérie euh, ça c'est un bon investissement parce que investir dans l'éducation Euh, c'est utile ah. parce que euh, réew moom éducation moo ko donc c'est vraiment très très important. Euh, tukki neex na mais ñibbisi aussi investir ci sa réew. c'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen. Et je pense que Sénégal, maintenant, nous sommes à une euh, étape de notre vie hein, économique. Pour ramener. Euh, on doit euh, saisir les opportunités yi nga xam ne moom la ñu suñu déwén offrir. am nañu gaz ñu amee pétrole ak pétrole bi waaw eh, c'est ça donc c'est important. il faut aussi une chose il faut que mu am aussi retour d'investissement mais aussi il faut que sénégalais yi gis seen bopp. ci li nga xamante ni moom mooy les ressources. les ressources naturelles c'est très important donc tey la bonne gestion des ressources naturelles la bonne exploitation euh, c'est important quoi dans tous les cas ouais. j'espère en tout cas que les Sénégalais sont conscients que que ce pays est riche euh, ah, en tout cas daal bu ñu exploiter suñu pétrole suñu gaz jël ko yamale ko seen bopp ah du wàcc ci Sénégalais loolu c'est important ah. investir ci loolu ah. non ça ça ma koy mere yëpp xam naa ne il a fait un bon investissement. mais mais c'est pas possible. man bi ma secrétaire bi ne am na ko lay seet ma ne man ma xool ma ne man je n'ai rendez-vous mu décliral ma la nii benn femme kii nii ma ne ko nee na Anne Marie la ma ne man Anne Marie Anne Marie ma génn yam ci yow. mais qu'est-ce que tu es devenu quoi lan ngay def qu'est-ce que tu fais maintenant. maa ngi ministère. ban ministère. ministère du pétrole et du gaz. ah bon. depuis quand. depuis un bail. man maay chargé de la promotion du contenu local. ok mais ça c'est intéressant mais xanaa léegi bëreetoo ay jëfar jëfar ak yooyu. ba léegi comme ça noonu laa mel. pas encore gisaguma l'homme idéal quoi moo tax naa fighting rek liggéey. mais pourtant yaa ngi yaa ngi tooy rafet ba léegi ah. liggéey ah. <laughs> nii nga ma samel rek ma la tooy. xam nga xam nga xam nga man ci affaire pétrole laa nekk. fii compta compté moo am. cash yow sa dara moo leerul yow yow sa dara du jaar ci papier jóge ci papier mu leer. leer traçabilité zéro. non toi tu préfères les choses se passent ma au mais kii bu leerul woon doo jot délibération bi leer moo tax nga jot délibération bi. boo graissé wul woon cinquante millions ci maire bi doo jot délibération bi léegi nag da ngay génne cinquante millions ñu jox ko receveur bi nga am titre foncier bi lépp ta bi géej booy loolu nga doon ñaan yàlla booy bul fi wax ay wax yi virement fii compta compté la ñu xam fii senegal la gars yi ay virement boo leen koy wax dañ lay jàppee ku wérul encore une fois ma wax la ko. te man yow da neex làmmiñ quoi. mais c'est que vite fait da nga may guux. waaw mais dama neex yow li ma wax yaa ngi gis résultat bi non. non mooy loolu léegi ce qu'on va faire. waaw nañu naa ko dugalal naa la jox vingt cinq millions ñu joxe ko après ñu dugalaat beneen vingt cinq millions bi loolu moo mën a nekk. Yannick. s'il te plaît mën ngaa bàyyi vingt cinq millions te jox ma cinquante millions. non mënuma la jox cinq après ma la. jox ko ko après euh, kii bi mën a génn TF bi mën a génn. léegi xaaral ma gis. Euh, non booy gaawal booy damay dem booy. nee la booy sama dama daal bi booy. waaw d'accord mais le DC d'après tous les efforts yi mu def ba ñu gis monsieur le maire il faut ma jaar fa remercier ko quand même. vas-y faut faire vite. d'accord j'arrive. ok mon moo tax ma wër ba ma wër la ba ñëw fa. non wax mais tu es comme ça bi ñu jàng noonu nga meloon loolu rek nga bëggoon ay affaire pétrole. Ah. moo tax. seen ministère boobu sama dossier ma nga fa. sama dossier yow. <laughs> gis naa ko <laughs> sama ñëw fii c'est Marie. sama ñëw fii c'est pas pour rien. ah daal sama dossier ngay topp ba ñëw sama bureau yow dossier moo la tax nga ñëw sama bureau quoi. mais bon bref yàlla nii la ko tuddee woon je suis vraiment content de te voir hein et puis euh, très jolie très belle quoi toujours belle sax yow nii nga mës mel mais nga ne amagoo ba léegi. amaguma jëkkër. ci loolu laa nekk boobu ba léegi parce que loolu laa mës a gëm. Mm-hmm. et puis di ñaax beaucoup de jeunes maa ngi ci ah bàyyiwuma que ñu gëm seen bopp que ñu gëm seen ay valeurs. que ñu xam ñooy kan am jom quoi xam seen ay valeur ah ci loolu laa nekk ah. ah monsieur le maire. toogal toogal toogal. je te te li ñu waxante woon te dix millions. non monsieur le yow tam bul def loolu sawaay laa àndal mi ngi ci suuf. ah ok jibbeegul. yaa ngi jibbeegul doo xam ne ci suuf di ma xaar. ok c' bon c' bon. voilà donc euh, dix yi. c' da nga ma koy gardeel. Mhm. ngoon dinaa jaar sa kër. Mhm. su ma fa ñëwee récupéré ko. y' a pas de souci mhm. dafa am beneen affaire. boo xam ne il faut ma wax la ko. Ah xam nga littoral bi. cent cinquante hectares yi. jox nañ ko Yannick. léegi des na yeneen cent cinquante hectares. yooyu. yow xam nga ni d'ici peu de temps état bi daf koy soxla. léegi nag il faut ñu organiser wu. ñu trouver quelqu'un le plus rapidement. nga jaay ko le mètre carré à mille francs. boo ko jaayee à mille francs le mètre carré. état bi bu soxlaa foofu. après léegi dañ ko koy jaayee cinq mille francs le mètre carré. comme ça yow di ci bénéficier wu. man dinaa ci bénéficier wu. ça m'a traversé l'esprit ma ni naa la ko wax. waaw ma jël samay propres fonds aussi gëm ko léegi am naa ay partenaires. oui am naa ay partenaires ñoo xam ni voilà ñu ñu et maa ngi sant yàlla nga ñaanal ma rek. dama lay ñaanal bu yi gëm ñu aussi xam ni ñun balaa ñuy jox bailleurs yi ñun dañ ñu dox ba pare. waaw balaa ñoo dox waa bitim réew nañ ñu dox ba pare parce que am nañu xam-xam bi te bëgg nañu. Sénégal ay kàngam ñoo fi nekk. ay borom bopp ñoo fi nekk. mais su fekkee moyens yi war a ñëw fii ak financement yi dañ ko yóbbu fële. ñun toujours day xaw a métti ci suñu côté loolu nag il faut ñu xeex ko. Euh, tu es si. topp ma ñu am fu ñu ànd man ak yow. Euh, mais sama problème xam nga lan la mais fan la ñuy gisee ku ñu jaay loolu. loolu bu ci bu ci bu ci wu bu ci inquiété wu. c'est loolu man maa koy piloté man maa koy géré hmm. yow li ma bëgg mooy hmm. fexeel ba délibération hmm. na nekk délibération bu baax. mais loolu le problème man su dee délibération bi mën naa ko gérer au niveau des impôts nga gérer ko. très bien mais nag il faut mu gaaw. lu def ko dans les plus brefs délais parce que lii du lu ñuy sax xaar. ah non moom kañ na moyens yi taxaw rek. donc y a pas de souci. tu es partant. je valide je suis merci monsieur merci dafa ko may xaar ci suuf te bëgguma mu dutee. kon ba guddi. waaw d'accord ma xaar la reer wala. ma reer nga may xaar reer yow teel ma 10 millions yi rek damay jaar rek récupérer ko dem. non da ngay réer. non non non non non non non sama waay nga. waaw d' accord mais jël waaw waaw merci beaucoup. y a pas de souci. ok merci merci Jo merci. Jo Baba mooy lu xew ba woo ma fenn lu dul ci place publique quoi. booy man place publique ba ma ko gëjee dégg wala di ko gis xaw ma kañ la ko lu xew booy. xam nga Bruno yow man ak yow dafa am benn complicité boo xam ne dafa nekk suma diggante ak yow depuis temps booy nag quoi. même gars yi sax loolu daf leen jaaxal dañ naan moo ñaar ñi ñoo far mais du loolu boo gisee li tax ma tànn la ci biir gars yi mm-hmm. parce que xam naa ne yaa leen gën a intelligent non seulement yaa leen gën a intelligent mais yaa leen gën a intègre tey nag moo tax ma wóolu fii pour ñu détailler benn affaire boo xam ni man j'en suis persuadé que dina la intéresser. ah bon ah bien sûr. ah pour pourquoi pas <laughs> pourquoi pas. oui léegi nag affaire bi lii la dafa am benn deal. deal. deal. Oh, deal en tant que tel wala yow lan la ko en fait. dil nga ma wax quoi. mais deal en tant que tel. deal mais Jo Baba. mais Jo yow kañ ngay changer quoi au fait. mais Jo man ak samay statut quoi. mais Jo après tout yow war nga ma woo ci leneen quoi lu dul ci ay deal quoi. yow xam nga ne man bu dul dara man samay statut mayu ma li ni mel nga may wax waxi deal dil nga wax quoi yow deal dil xam nga yow li la sonal muy ay affaire statut ay monument ah. déglu rek. Oh, non defal ndak yow. ok xam nga xam naa peut-être li nga yàgg ci arab bi ak xasida yi nga xam ni daan nga ko jàng. amiin ak yenn citation coranique yi nga xam ni vraiment tout le temps bala ngaa tëdd moom ngay xool. amiin yooyu moo nekk ci sa esprit bi ba dominer la. sant mais il faut fair l'équilibre tamit quoi. ce qui veut dire. ce man Bruno dama laa yéene. non de même que très bien. léegi nag dama bëgg nga dégluma bu baax quoi. t'écoute attentivement. Euh, deal bi xam nga lan la mairie bi ma nekk. waaw xam nga man sax dama am ay relation ak ay maire rek quoi nit ñi yaakaar ni ci mairie laa ne mais je ne suis pas dans les mairies. on se connaît. on se connaît ah, voilà. maire bi dafa am cent cinquante hectares ci corniche bi léegi cent cinquante hectares yi. moom da koy jaay yow laa choisir pour nga jënd yow déglu ma rek mètre carré bi mille francs la koy jaayee. mètre carré bi. 1000 francs la koy jaayee. d'accord état bi day soxla foofu léegi bu état bi soxlaa foofu yow yaa ko koy jaay metre carré bi mille nga koy jaayee boo ko jaayee mètre carré bi 5000 loolu ay milliards la. bu ko defee man ma am ci yow nga am ci maire bi am ci yow nag laa choisir pour dil boobu ok frère lii mooy jataay bi ok je veux dire Maodo da nga bëgg ne def benn promoteur waaw waaw promoteur d'accord nga jënd affaire bi mais kon après milliards yooyu yëpp hmm. man yow ak maire bi ñoo koy jëfandikoo ko waaw boo génnee say mille francs ba pare waaw léegi quatre mille yi des dangay am ma am ci maire bi am ci ay milliards la loolu lépp mënoo koo lekk loolu boo ko lekkee du logique sax quoi mais ñun ñi nga xam ni man mi nga xam ni ma teg dil nga xam na dama ciy lekk bi aussi tamit mu lekk ci xaal neexatul waxtaan bi neex na man xaal nu mu mel ba ginnaaw mais madame on passe aux choses sérieuses nag malaan na moom Médina lan la c'est quoi ton problème exactement Médina lan ngay déggee yow. ci lan. bah tu sais de quoi je parle bien sûr. <laughs> vas je t'écoute mi Médina la fois passée lan laa dajul ci Ibrahima pour qu'il te pardonne wax naa ba mu jaral ma ma raam te Ibrahima baal la à ma grande surprise. ma jég saay Ibrahima nu tëj njëng sama kanam Pape Saliou était là dama sax ruus a déjà parlé non bàyyi sa jëkkër ji ngay topp di ko wax waxu miraas une bonne fois pour toutes lan moo la dal Medina wala yow tu es sous l'influence de de xaar man je te reconnais plus génnal ci li nga nekk affaire bi c'est simple danga toogewul ni ma tooge ak lu metti metti yow kenn Pape Saliou kenn bokkoo ko kenn. loolu la eh, jo man li ma la bëgg a xamal xam nga mooy lan. Hmm. mais du ñun ñett ñoo dëkk ci commune bi quoi. waaw du ñun ñett ñoo dëkk ci commune bi. yow lu ci sa yoon ci ñeneen ñi. non non jo attends attends attends man y a de ces choses yoo xam ne du ma ci dox. y de ces choses yoo xam ne du ma ci dox c'est pas sérieux mënuñu di jëfandikoo alalu askan bi te askan wi di ci gis boppam yow man maire bi ci ñaata ci ñaata hectare ci ñun lay des quoi est-ce que toi tu t'entends parler quoi yow. mais je m'entends parler. non tu ne t'entends pas parler. bàyyil askan wi ngay bàyyi xel bàyyiwul la xel. bu yeboo mais man suma devoir dama koy remplir ku baax par A ou ku def ma def ku deful ma def de toute façon yi nit du ma fekk ci négativité. Bruno qu'on soit clair booy. ci positivité ci positivité la ñuy waxtaan de. non dafa des ba mu nekkee dil la rax. mais dil la moo dil ça veut tout dire quoi. mais dil gars yi ko garaawoon rek. waaw non E A L. loolu du dara. Ah, en anglais. Bruno. voilà booy ne laisse pas cette occasion bi bul bàyyi mu romb la. booy euh, daa mel nag da nga ma fàtte quoi yow booy yow daa mel ni da ma fàtte booy xam nga ne bu ma doon dox ci li ni mel. kenn du ma yóbbaale maa yóbbaale ku mu mënti doon maa lay yóbbaale yow xam nga loolu quoi Zo Baba mec attends quoi il est temps que tu changes quoi booy man mënu ma dox ci li ni mel booy. c'est un marché nag macha allah mais pour les indignes quoi <laughs> moi je suis pas indigne et mon frère toi aussi pareil quoi. wax ma leneen quoi non tu a traité comme un indigne. Ah non pas du tout man maa indi dil bi la pas du tout la proposition c'est toi qui l'as en tout cas je m'excuse quoi. sinon nag boy yi mel bu ma ci woowati mukk quoi vraiment ak li ñu sekk yëpp ku baax frère je suis désolé quoi mais bu ma woowati ci yi ni mel quoi vraiment. day dund ba dee mais du am kër du am dara. parce que topp samay logique mais man lan moo a xalaat loo ay bruno yi sax quoi tamit vraiment may rabaisser sama bopp comme ça non mais man tamit lu ma dal maa ko teg sama bopp quoi ces types de sénégalais la eh toujours maay tooñ sama bopp ñii may xalaat ñii ñii Ibrahima xeexuma pour sama bopp sonaluma ko ci dara musuma ko sonal ci dara mais jadel yére yi may sol alhamdulilah maa koy jënd fal sama bopp or may takk maa koy jënd ma bàyyi lan li mu war a defar ay doomam non je suis désolée ma du ma ko def et dama lay wax lu leer naa ne gis nga li ma entamé. dama ciy dem ba jeex defuma ko pour man ay doomam laa koy defal mais Ibrahima joxuma ay doomam la koy jox léegi yow lan nga bëgg déglu ma ma wax la xam nga Madeleine Ndiaye sama xarit bi waaw mosuma la nettali histoire am looloo tax suñuy nopp laalal say nopp mm-hmm. jëkkër ji dafa gaañu xam nga fan la mujjee kër yaayam bokk ak yaayam lal di lal ay doomam ci suuf vie boobu dama koy épargner samay doom duma ko def. yow tu sais bien que foofu mat lañ njaay mujj du yow mii Medina yaa fay mujj nag Medina doo mat lañ njaay mat lañ njaay du yow quoi qu'on puisse xam nañ ne Ibrahima mii ah nag Medina ku la fonk la ku fonk say doom la. ah. mon ami. Ndiaye Yacine Sey. maa ngi lay siyaare. tous mes respects. mbaa yaa ngi ci jàmm booy tu n'as pas tardé ah. sinon ça va. ça va namm naa waaw mais les jàmm sant yooyu euh, nañ ko kii quoi léegi yow dama laa soxla soxla bu urgent quoi. yow sa compte bancaire ñaata moo ci nekk. <laughs> mais mooy compte bancaire grand amu compte. yow amoo compte bancaire. ni laa toll. mais nii nii nii nii nii yow ñaata nga yor ci xaalis ñaata nga ma nga yor. ci xaalis waaw. 3400 moo nekk sama calcul. defal sa xel ni bis ni ki tey na. dama lay def millionnaire ci lu mu gën a gaawee. déglu bu baax. dafa am benn dil. dilu dil bi nag. def la obsédé de telle sorte que tu prends plus ton temps pour prendre soin de ton mari Ibrahima bu dugg see ci kër gi nga attaqué ko sama doom yi miraas yi nit ku deewagul tu lui parles de miraas toujours affaire de testament Médina sa gémmiñ xasaw na sa doomu ndey moo la koy wax mën na kon boo waxee ba ne ma ni nga toogee toogeewu ko je me sens un peu frustrée xam nga lu tax man dama la considérer comme sama bopp depuis toute petite man yow xaar on est inséparable sa nakar mooy sama nakar d'accord naa tu veux jox sa doom kër d'accord laaj ma leneen xam nga booy wax sa ay dafay mel ni man kese maa leen jur ay doomam ah, may ma tuuti ma grande macha allah sama baay bàyyil na ma toi avant mu fiy jóge te maa ngi liggéey kon Ibrahima ay doomam lay bàyyeel mais pas man. parce que tam gars yi léegi dañuy fàtte sax caisse de sécurité sociale te c'est important léegi man je vais ci sa combat mais à condition que tu changes de manière parce que ni nga ko nar a jàppoo nii soo ko jàppee wallaahi azim ci vas perdre ton mari nag. parce que góor heure bu ñuy ci yow rek talatoo bégal sa jëkkër talatoo ko nemmali bu duggee ni mu duggee noonu nga koy dàqee mu génn ressaisis-toi ma puce loolu la am lu ma lay wax de danga jóg solo ñu gaaw dem. yow de Cedel xam nga ni man sama àdduna bëgguma ko dul Ibrahima mais sérieux man la bëgg te man tamit moom rek laa nopp su ma koy xool sax damay kontaan na sacrifier boppam sax man nangu naa sacrifier sama bopp na def autant. pour ñaar ñii bariwuñu dama ne fasewul kenn dafay sóob eh guerre boo gis day am trêve ma ne la ngeen jël pause laa la wax tegal say jaaj ci suuf naa ko neexal guddi waa lii laa bëgg dégg de dina la oo jeex na <laughs> dina sol gaaw ñu dem xam nañu amaat tuuti ci xaal bi Eh. oh. Ndiaye tekki naa. kaay kaay kaay kaay kaay toogal toogal toogal looy def nii. waaw mais Ndiaye da ngay da ngay wax nit. waaw lu mu amee courage ba pare nga déstabiliser. non déglu ma. mais africain daal vraiment moo gaaw a suul affaire bi noonu lay deme léegi nag dama lay jox un million. un million laa lay jox. déedéet déedéet déedéet déedéet. Ndiaye man nga maa may ma terminer. li ma lay wax lu am solo la su ma la joxee un million da ngay dem APIX wala nga dem chambre de commerce. pour def la. nga wut NINEA ak registre de commerce yaa ngi dégg boo defee loolu ba pare da ngay ubbi compte bancaire la boo ubbee compte bi man maay sa prête-nom compte bancaire bi da ciy def cinq million mais est-ce que jar na compte bancaire. waaye bàyyil jar na compte bancaire bu ko jarul woon du ma la ko wax. man maa jox liquidité rek. Ndiaye. waaw mais nañ ko bàyyi. waaw baax na baax na non nañ ko baax na baax na baax na xam nga sama situation xam nga sama situation. da ngeen a neexut a dimbali. boo def lu baax da nga koy continuer. non neexu leen a dimbali parce que bu leen nit di wax doo leen déglu li mu leen di wax. Ah, pour ngeen appliquer ko à la lettre. man li ma la wax nii du ma ko wàcc. Ah, parce que loolu mooy dil bi. 5 millions bu ma la ko joxee. Mhm. man maay sa prête-nom. da may déglu nag li ma suivre à li ma la wax loolu ngay def bu baax su ma ne la décaisseel nga décaissé bu baax su ma ne la jël xaalis bi dugal ko fa nga ko fa loo wax laay def on est d' accord d' accord on est d' totalement d' accord nan dem ma jox la un million mais na ko ma jugal ñu dem oh. eh. li ma la wax nag na nga ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. Ndiaye loo wax laay def. waaw ma tere moom laay bàyyi. yow laay déglu fi mu toll nii. un nga wax.